élection locale 2021 ginnaaw xar-xarale gi dox ci diggante candidat yi nag ñoom ñi nga xamante ñoo di waa cadre de concertation des partis alliés ñom nak daal di am ab taxaw seetlu amal ab ndaje niki tay nak daal di fas yéene seen bopp ak seen qualité ci ki nga xamante modi seen candidat bi ñu faloon mu di Talla ñu daal di bëgg nak daal di dàbbali buum ci mboy mboy ga nag daal di def ki nga xamante modi moo di seen candidat Souleymane Ndiaye ci micro Koumba Diène kuréel bi dajale parti jàppale

bi ñuy defee yooyu jéego dem si centre yi dem suñu préfecture yi ñëw nañ fi def ci point de presse nii da def na suñu wargoor ci tànk yooyu waroon def pour saytu processus électoral bi def nañ fi léegi de point de presse bi yàggu bi ñu fa jógee nag lañu ni léegi fi ñuy jëm ci élection yi mooy investiture maire yi ak conseil mais si ngeen bu yàggul ay responsable ci seen droit la aussi ñuy déclarer sa candidature ci mairie bi ak ci commune ñun ñu gis ni biñu togué ba gis suñu bop évaluer ñu ne ah mais ñun day suñu biir amna maire bu bok ci cadre concertation bi maire boobu mooy Talla Sylla la. buñ sukkandikoo ci Souleymane Ndiaye moom mi nga xamante ni nag moo yoroon kaddu bis ga daal di nay xam na ni bu boo ko xaymaa lu di set partis yoo nga xamante ni ñoo nekk ci mouvance présidentielle benn bokk yaakaar yépp nag daal di nañuy ànd ñoom ñëpp joxante loxo joxante bopp daal di fas yéene nag jox seen candidature ki nga xamante ni moo di Talla laa Talla moo ñëwal boppam fii démb ci biir cadre bi ni moom pour continuer am ci mairie Thiès mu wax ñu ñun ni wax ko pare genn ni man dama leen baña gêné mu fi togen sax man ngeen rus wala ngeen am kersa ba baña wax li ngeen xalal ci man wala lima fi def kon man sama candidature mi ngi nonu genn na xajal leen dem yoonam ñun responsable fi togol togol fi mandat fukki parti ak juroom ñaar ñu waxtaan

diplôme boobu buñ ko doon joxe ci Sénégal mom premier mo wara jël premier fii lañ ko ko joxe Dakar presse bi toujours buy amé li nan dajé citoyen ni nek ci dëkk bi ak taala yéen a koy couvrir tous les 6 mois def nako pendant tout le mandat buñ ko ci nga xamante modi sulayman jaay 11 km de Promovilles yi nga xamante nak mi ngi waaju dolli ko ci nga xamante fuk ak juroom ñaar yi nga xam mi ngi koy waajal marché poisson ak yeneen yi nga xamante mom talasi la dal daal na koy réaliser loolee sax buñu ko ci nga xamante modi sulayman jaay ak yeneen yi nga xamante nak mënu ko lim dal dinaay waral ñom ñëpp ñu dal di fess yene nak dal di taxaw nak sampat ndëndu talasi la fess yene ko bàyyi nak mu dal di eggal liggéey bi nga xamante ne sumb na dëkk bi de nee amna lu mu fi def lu ñu teg suñu bët am y tali ñu fi def onze kilomètres tali mi ngi si la fi indi fukki kilomètres ak juroom ñaar ñu ngi koy recommencer diko def ci dëkk bi ñu bi indi ñetti lampe solaire kon ñu bari ñi ngi ci leerlu ci bi ñu ne xeyu xalé lu def ñu lu mat ak lu contrat ay

yuy liggéey tey boo soxlaa fukki junni ñu jox la ko ci tàng-tàng bi nga liggéey delloo loolu dimbali na ñi mu dem si banques yi ñi mu demoon si crédit mutuel yi ñu ne mag ñi ñu ne mag ñi fii ak weer wi dee dafa naan décembre hôpital pour mag ñi fii si yoonu Mbuur ñu ngi koy tabax jigéen ñi ñu ngi leen tabaxale foyer des femmes fu ñu mën a réunir ñoom ñëpp groupement yëpp di waxtaane seen activité ak xale yi ñu ne day loolu lu ñu teg suñu bët la kon nag jaadu na ñun bu ñu amee maire bu mel noonu mu ne suñu biir ñun kat ñoo war a jëkk a jug pour ni kii kat nañ ko jàppale candidature am porter ko construire ko moy demb lañ ko acté manam lem qui ni ki moy suñu candidat waaye néna na lu ñu yem candidat parti politique rek doyul pour nek candidat dëkk dañu ni mu nek candidat citoyen yi candidat yi population yi candidat des femmes jigéen ni candidat xalé yi des jeunes candidat de la société civile et religieuse ni ñu ko mënee wax ci wolof def demb parti signé def résolution moy résolution li lay wara jox lolou moy djégu biñu ñu def ci élection yi ñi jëm ñu né yenen commune nak parce que ville bi rek nekku fi fi ci dëkk bi amna commune est amna commune nord amna commune ouest dem lañu commencé recenser candidat yi fofu ñu nekk suñu ñun wax dé ci cadre concertation bu dé am na ñoo xam ne ñoo bëgg nekk candidat si yooyu commune nañu yëglu ci tey jox ko benn commission ñu dajale candidat yooyu woote réunion waxtaane candidat yooyu génn suñu taxawaay si candidature yooyu fësal ko ni ñu fësal bu taala yaakaar ni yàlla may si mucc ndam ba bu ñu watee coalition bi am si ndam président am si ndam réew mi ak dëkk bi am si ndam incha allah jërëjëf